mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñuy jaajëfalaat sëriñ Touba Xaadim Rasul di ñaan sëñ Muntaxa moom sëriñ Basiir yàlla na ko fi yàlla yàggal ci wéral ko lool ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke borom Touba tey ñu ngi fii ci on Miftahoul Nasri soppee sëriñ Saaliw yi ñuy amal li nga xamante ni mooy safar saa bu weeru safar teroo ñu yëkkati ay bernde di ko def jëmale ko ci mbokki jullit yi waaye jëmale ko ci mbokki taalibe yi euh, tey nag ñu toog ak seen beneen jëwrin bi nga xamante bi mooy jëwrin ji diriger lépp kon dama koy jox kàddu gi rek ma daal di nuyu ku baax. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakato. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàcce waay baax di nuyu télé bi nga xam ne moo ñu fekk si tey Global ñu ngi koy ziar bu leen jox seen wàcce waay bu baax baax alhamdulilah. waaw xeebu ki de mooy Moussa Faasa waaw dëkk Njaareem ñuy yor daayira Miftaawu Nasri soppay Serigne Saliou ànd ak ñoom liggéey bi. Hmm. ngeen ànd di def liggéey bi nga xamante bi mooy bernde te ku wax màggal wax bernde ngeen ci liggéey liggéey bu am solo ñu gis lii ngeen taxawal ko nan ngeen dafa taxawal lu mel ni ah lii xam naa ne mbiru Sëñ Tuubaa la rek ak lu Sëñ Tuubaa dogal ak nammeelu sëriñ bi ndax mbooloo moo xam ne la li ci ëpp ci mbooloo mi ay gone lan ñu am na ñoo xam ne sax seen métier dëgërul waaye pas-pas bu dëgër ak nungoo jox Sëriñ seen alal daanaka rek moo taxawal lii te sëriñ bi ku ne xam na ne lim digle ci màggal gi mosuñoo dégg fenn ci histoire wala ci mbindam fu mu wax ne nañ nan ma jàppale ci nangam lu du bisam bii santam la ci sama bis bi ginnaaw loolu itam moom rek lan déggat mu ne koo xam ne sama mbég sama mbégte la te damaa jàpp ne mbegum Sëriñ ku ko bëgg ba di ko wut sëriñ bi joxoñ na la barab boo ko amee muy màggal gi loolu nak moo ñu ci bu bis bi ñëwatee mom sago dootun ko am dana dem ba sax barabu bërëbu kay yëpp mbolem ku nekk ci daara ji dana ko soppi ko go ne dara warul ko lu bis bi wa loolu dal moy yëngu ji moy dal waye dal daayira la bo rek la ñor bisu Sëñ Tuubaa bi rek kan ñor ko ak leneen dañuy wax ne sax lu ñu di lebal nañu ko lebal ci bis bi ngir bu bu lay fay fay ga neex wa ñun dal magal moy suñu yitté moy suñu bir taxawal lu melni ni yombul tey da ngeen koy taxawal at ba at lay at lay màggal di doon wala da ngeen di yëkkati li nga xamante ni mooy aw sos kenn ku ne sasoo ko wala nan lay demee. am liggéey bi nag euh, sosuñu kenn kenn ku ci nekk. yaa xool sa diggante ak Sëriñ Tuubaa la sëriñ bi jar mm-hmm. nga ne kat màggal gii di ñëw danaa matal nangam wala danaa jox nangam ci biir loolu itam def nañ ci ay liggéey yu am solo mm-hmm. defal ko ay groupe ay pool ay pàcc pàcc yoo xam ne mm-hmm. dañ ciy boole ay nit ñoom ñu ànd ne màggal gi kat den joxe nangam te ñooñu ñëpp di maase di ko joxe itam comme la ma la waxoon ca njëlbeen gi rek ku ci am métier dëgër na mu war a dëgër amu ci waaye li ma la wax pas-pas bu dëgër ak yitte ju kawe rek moo leen moo moo amal mbir mi te itam bawuñu ci kenn ba ci gone yi ndaw yi nga xam ne ñoo leen jur ñii di suñuy jarbaat ñëpp ku ci nekk donte juróom danga ko tàbbal ci biir liggéey bi moo mel ni amul xale amul mag amul ndaw amul jigéen ñëpp ñoo ci jëf ji bu bis bi ñëwee moom ku ci nekk la yittee mooy na bis bi jag moo tax muy euh, liggéey bi di yomb waaw ñun nag suñu yitte nag day màggal gi ba bu weeru safar tero di première safar ba ci ñaareelu safar ba ci 17 safar dañ koy tànt fii guddi gi jot di ci màgg di ci màggal yonent bi di ci màggal sëriñ bi nga xam ne moo woote bisam bi euh, wàcce fi alxuraan jàng fi xasaayit bis bu set nag bu bu weesoo si loolu bu nee suba la màggal gi ci la ñuy def ay bernde yu am solo ngir mbokk taalibe nga xam ne ñooy jaar fi jëm Touba bu leen bernde ci wàllu añ ba suur euh, ñu indil leen kafe ngoon mu jigee ci kafe ngoon googu itam jouru màggal xam na ne njaareem am na ñuy màggale waaye am na ñuy des ak ñun ñooñu itam dinañ def ak ñoom noo xam ne ku ko ci xas ñam daanaka dootoo dootoo waaw njaareem ngay màggale bari na ci ñoo xam ne bi ñuy soog teew ci loolu sax jaaxaloon na leen waaye nag ku ci xas ñamloo rek dootoo daanaka jaaram ngay defee lépp bu nu jugee ci màggal gi jour màggal itam bu nu màggalee ba ci suba ga daan tobb lu tolloog ñaar fu quarante mbana yi mën a yoo xam ne toggaat yoo xam ne yii day jëm ci ceeb yi jëm ci mbaxal ñu teg ko fii buñ ah, buñ màggalee bay dëpp ku ne xam ne ne màggal gu gu ñuy dëppee coono bi ak xataayu oto bi da gis koo xam ne dana duggee Touba huit heures bala du génne saa bu ñëwee ba yegg si njaarim rek mboolem coono bu mu amoon ci yoon dana ko fàtte mhm. bu nu màggalee ba ci su ba ci suba ga noonu bu nu màggalee itam ba ci gënaawaat suba ga itam noonu lay noonu lay demee waatee Global TV Diourbel 24 moom danaan abonné incha allahu rabbi maam ni suñ golo globale bagage yëpp <laughs> maam <laughs> ca kaw yow it nag ñu ñu la bu baax ci taxawaay bi ak yitte yi ak pas-pas bi ndax ñëw nga fi démb ginnaaw bi nu waxee yow nga dellu siwaat dañuy xam ne rek sëriñ bi rek la yitteel ak bëgg a yaateel mbir mi yàlla nga ci dajeek ngërëmal sëriñ bi télé bi nga xam ne tàmbali ngeen ko ci ci moom itam ci noonu ci euh, global TV 24 moom itam Diourbel 24 yal na ko suñ borom barkeel ba fu télé li yegg mu yegg fa fas leen ko ci bis bi rek bis bi moom xamut lu mu attunul moom luy soppi luy soppi àjjana bawut àdduna moo tax ku ci nekk rek soppi ko àjjana moo gën a yaatu àdduna waaw <laughs> jërëjëf sant ngërëm ñeel na la jërëjëf baay jëri jërëjëf kontaan bu baax jërëjëf akasa